ci nim la ko daan waxee naka jekk ndax yow président sëriñ bi nee na xam nga li nga séq ak yoonu murit xam na li nga jàpp sa diggante ak sëriñ Touba ndax nguur boole wala ak yoonu murit mu ne loolu nag sëriñ bi jàpp na ko te sa tànk tey yii firnde la ci ndax wàccoon na la sax mu ne boo yónnee woon mu jàpp ne teew nga kon mi ngi lay sant bu baax kon ci ànd bi nga xam ne lii nga xam ne yéen a ko bokk muy ubbi teg jumaa ji kon sëriñ bi dafa wax ne mu ne na sa xel dal bu baax ndax sëriñ Tuuba dafa waxoon ne an na man waasala nii laa laa laa yu fa inna yakunu mi innal muxarabina wa anna man wasalina li dunya faxat fa inna allaha yukrimuhu maa daama xayuku nee na képp koo xam ne ñëw nga ci man te àdduna taxu laa jug suñ borom dana la boole ci ñi ko gën a jege ku ñëw ci man nag te àdduna tax laa jóg suñ borom dana la teral sa giirug dund mu ne kon képp ku yaakaar sëriñ Tuuba na nga xam ne suñ borom dana la teral sa giirug dund nee na kon mi ngi lay fàttali lam la waxoon rek ba nga ñëwee Tuuba mu wax la ko ci làmmiñam ci li nga xam ne jëfal nga ko yoonu murit ñëpp xam ko muy loo xam ne moom da koy fàttali mu ne te wax na la ko keroog mu ne kon loolu na nga xam ne du ko fàtte ñim ko séqalit duñ ko fàtte kon cant rek la la ameel ak ngërëm ak di la ñaanal mu ne ñaan giit mooy suñ borom dëgëral gën laa dëgëral kàttanal gën a dolli sag nga gën a wéttali réew mi lu yàgg ndax loolu bëgg-bëggam la nee na itam mu ne la nga ko waxoon bi campagne bi jub mu ne dégg na ko bu baax lam la ci waxoon it foofu rek la ci nekk mu ne ndax sëriñ bi dalaa waxoon ne mu ne daf fee nekkoon ak ay kilifaam sañu ta def sañu ta dindi léegi nag ndegam yàlla def na moom mu nekk fi te xam ni nga demee ci moom lépp loo xam ne lu ko war la sa diggante ak moom nee na mi ngi ci te mi ngi ci bu baax a baax mu ne te gën dina la ko gën a leeral ba nga gën koo xam mu ne kon mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax waxtu wi dafa jot te sëriñ bi ñàkk lu mu bëgg a wax ak yow waaye mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci jëf yi nga xam ne jëf nga ko ci yoon wi jëf ko ci réew mi ndax lépp looy jëfal réew mi bu dil Tuubaa it cant gi war na ko ndax sëriñ Saaliw bi mu fi toogee màggalu Tuubaa ga njëkk a jàll ba gàmbug Tiwaawoon agsee dafa yénn ci ndaw ne lépp loo defal Touba na nga ko fa def mu kon loo defal réew mi rek moom nga ko defal te réew mi sa jëf ñëpp gis nañ ko kenn fàttewu ko jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullah